ngi leen di nuyu ci nuyoob lislaam xam ngeen ne e, tey jii la alxalifa al aam li taif al muridiya al cheikh mohamadul muntaqa ibnu cheikh mohamadul bachir ayadahu llahu wa nasarahu wa xafizahu tey jii la njëkk a yëkkati kàddoom jëme ko ci jullit yépp jëme ko ci réew mépp waaye jëme ko ci taalibe yi yépp euh, xam ngeen ni dégg ngeen li mu wax euh, réew mépp tey jii dégg nañ kàddu yi nga xam ne moo bàyyi ko ci làmmiñam yaakaar naa ne ñépp déglu nañ ko waaye nag gannaaw àdduna si dafa yaatu te làmmiñ yi wuute mu jàpp ne moom àdduna sépp ko tax di wax ndax ñépp la fi nekkal mu bëgg nag ñu wax ko ci làmmiñ yépp rawatina làmmiñ wi nga xam ne mooy luxatul quraan mu ni al luxa al arabiya e, ni ngeen ko déggee mu wax ko wax ne gannaaw boo xamee ne bind nañ ko ba noppi dana dana digle ñu tasaare ko dana digle ñu tasaare ko ba ñépp jot ci moo waral kii nekk ci sama ndeyjoor di sëriñ Muntaxa Mbakke li nga xam ne sëtub maam Moor Jaara mi nga xam ne mook Seexul Xadim ñoo bokk lépp doon koo xam ne boroom xam-xam la sëriñ bee ko yar sëriñ bi la nekkal ca ngoneem ba nii mu toll nii mu nekk ak sëriñ bi mosula taxalikook moom ci benn waxtu di ko féete ci wax mbir yu bari moo nekk ci sama ndeyjoor nii Serigne Cheikh Mbacke mi nga xam ne doomam la moom itam du rek doomi Cheikh Mouhamadul Muntaxa waaye nag dafa doon jëmm joo xam ne it ah, ku Cheikh Muntaxa yar la jaarale ko ci jaar-jaar yu bari euh, ba tey jii mu bokk ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi saytu mbirum xam-xam fii ci biir Touba daare Cheikh mun taxaa ji nga xam ne moo nekk fii ci biir dëkk bi moom mii mooy ki nga xam ne moo ko jiite moo koy taxaw moo koy toppatoo kon moom itam moo nekk nii ci sama càmmoñ euh, sëriñ bii itam li ma ci waxoon moom jàngalekat la imaam la waaw jumaa yi Cheikh Mouhamadou Mountakha ji nekk fii ci jànnatul Mawa wala defe na foofu daalul minam moom mooy imaam bi moom ci boppam ba noppi nag boole kook nekk sëñ daara di jàngale alquran di jàngale xam-xam ak seen dongo bii nga xam ne moo jàkkaarloog yéen <clears throat> euh, dañuy jàng discours bi ci ni ko sëriñ bi defee ci arab bu ñu noppee ñu jéem ko tekki ci wolof yàlla na ci yàlla dimbale ba nu man koo matale ni nga xam ne ni la ko sëriñ bi bëggee ba mu nekk loo xam ne dina jëriñ mboolem juddit yëpp waaye dana jëriñ mboolem taalibi yëpp waaye dana jëriñ réew mépp tam innahu samiun mujib bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin walsalaatu walsalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa saxbihi zawi ridwani waltamkin ayuha almuslimuuna fi mashaariqi alardi wa magaaribiha ayuha almuwaatinuuna alsenegaaliyuun أيها الإخوة المريدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika hum muhtadun waqad ibtalaana allahu bi raxiili alamin jalilin afnaa umrahu kullaha fi lcibaadati walxidmati wa fi tawxiidi sufuufi almuslimiina wa binaai buyuuti illahi wa cimaaratihi faqad kaana alcheikh sidi almuxtaar radiallahu anhu masalan yuxtada bihi fi zuhdi walcibaadati walxazmi walcazimati wa fi linfaaqi fi sabilillahi wa musaacadati alfuqaraai walmasakin wa musaacadati xujjaaji beytillahi alxaram wa takafuli bi jamici lawaasimihim fa uazzi nafsi wa jamici alumma ala raxiili hada alsheyq aljalil wa nasalu allaha jalla wa ala an yarfaca darajatahu fi cilliyin alladina ancama allahu calayhim min annabiyina walsiddiqina walshuhadaai walsaalixina wa xasuna ulaika rafiqa wa an yujziyahu wa an yujziyahu xayra aljaza an almuridina walmuslimina wa an cibaadillahi ajmacin wa baad fa inni atawajjahu bilshukri waltaqdiri ila ixwaani almuslimina cumuman wa ila ixwaani almuridina xusuusan wa uridu fi hada almaqaam an atawajjaha bi kalimatin wajiza ila ixwaani min ali albayt alqadimi wa ila almuridin wa ila alqiyadat aldiniya wa ila jamic almuwatinina fi Sénégal wa asalu llaha taala alcawna walsadaada waltawfiq lima yuxibu wa yarda fi kulli xatawaatina wa fi kulli xarakaatina wa sakanatina qul inna salaati wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidalika umirtu wa ana awwalu lmuslimin sadaqa allahu alazim risala muwajjaha ila ali albayt alqadimi wa ama alnuqtatu alula fi hada alxitab فموجهة إلى الأسرة من آل البيت القديم فأقول لكم بعد قبول البيعة منكم إني أفهم جيدا مغزى هذه البيعة wa ma fiha min rumuuz wa dalaalaat wa wa ay tamaaman maa yatatallabu dalika minni min taxamuli al-amaanaati wal mas'uuliyaati al-jisaam amaama Allahi wa amaama Cheikh al-Xadiim radiyallahu anhu wa amaama al-aalam ajma wa inna haadihi al-muhimma muhimmatukum wa inna haadha al-maqaam alladi ana fiihi al-yawma yumkinu an yakuuna fiihi kullun minkum fa arju an akuuna ala mustawa tatalluaatikum wa asalu allaha taala an yuinani ala taxamuliha wa adaiha kama yanbagi innahu samiun mujibu daawaat wa uridu huna an uakkida muahadati lakum amaam allah wa amaam alaalam ala tajdidi alahd walazima ala muwasalati ala muwasalati alamal fi xidmati cheikh alxadim radiallahu anhu walamal maakum bi mabdai shura fi jamii al umuur kama amarana allahu bihi fi alquran wa amruhum shura baynahum wa atlubu minkum an takunu shuhadaa li amaam allahi ala al ahdi alladi axastuhu amaamakum wa an wa an natafaana fi xidmati alcheikh alqadim radiallahu anhu wa an nabzula kulla ma fi wuscina li taxqiqi almasaalix wa dar'i almafasid fi umuuri addiini waddunya insha allah risaala muwajjaha ila ila almuridina umuman wa ama alrisalatu althaniya fa uwajjuha ila ixwaani almuridina bi shaklin xaas wa uwakkidu fiha ala wujubi ixlaas alcamali lillahi waxdahu bila sharikin amalan bi qawlihi taala wa ma umiru illa li yacbudu allaha muxlisina lahu ddiina xunafa wa yuqimu alsalaa wa yuutu alzaka wa dalika addiinu alqayim fal ixlaasu fal ixlaasu jawharu dacwati cheikhina alxadim radiyallahu anhu wa lubbu tariqatihi ltajdiidiya kama qaal wasfu lmuridi tarkuhu liraada li wajhi man yafcalu ma araada man lam yurid cheyan siwa mawlaahu yasil lahu wa xayrahu awlaahu fa min huna wajaba alayna jamian tajdiidu iraadatina بالإخلاص لله وحده بلا شريك في النيات والأقوال والأفعال والأحوال wa taxarri mardatihi taala wa mardati cheikhina alqadim radiallahu anhu fi kulli xarakatina wa sakanatina wa aqaaidina wa aqwalina wa afcaalina wa axwaalina wa kullaha zahiran wa batina is il muridu laa yuridu abada xayra rida arrahmani xaysu qasada wa yajib an najtahida fi ixlaasi alcamali lillahi wa muraqabatihi taala fi dawaaficina wa fi niyatina والترفع عن الجري وراء المصالح الشخصية الفردية الضيقة التافهة والزائلة وأن نحاول دائما جمع الهمة على على الله تعالى والإقبال عليه بالكلية والارتقال لنيل ما عنده ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزن الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن fa la nuxiyannahu xayaatan tayiba wa la najziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yacmaluun sadaqa allahu alazim wa hada ma arshadana ilayhi alcheikh alqadim xiina qaal ya ayuha alnabilu dac ma yanfadu wabgi munan fi abadin la yanfadu hada qawlu alcheikh alqadim wa bi hada faqat yataxaqaqu fiina macna aliraada الصادقة والهمة العالية التي دعا إليها الشيخ وربى عليها أصحابه ومريديه الأوائل عليهم رضوان الله تعالى في كل وقت وحين وعليه فإني أذكركم بالدور الريادي الذي قام به, به, به آباؤكم وأجدادكم رضي الله عنهم في قيام طريق الشيخ القديم رضوان الله عليه في نشر دعوته وإني أدعوكم إلى متابعة العمل alladi badaahu badaahu al ajdaad wal aba bi muhimmatin tumaasilu himamahum aw tuqaaribuha wal taalamu annakum lastum gurabaa fi l amr bal shuraka risaala muwajjaha ila ahali tuuba xusuusan wa ama risaala saalisa fa muwajjahatun ila ahali madinati tuuba almahrusa alladina akramahum allahu bi mujaawarati cheikh alxadim radiallahu anhu wa man yazurunaha wa usikum fiihi bi darurati muraaati muraaati xurmati almadina waltizaami maa yaliqu biha min aadaabin wa sulukiyatin kama daaba ala tawkiidiha salafuna alsaalix alayhim ridwanu allahi taala wa bitajannubi kulli ma laa yaliqu bi mujaawarati cheikhina alqadim falnaxris ala adami intihaaki xurmatihi walmasaasi bi qadaasati madinatihi wa tajannubu maa amkana wal natajannab maa amkana kulla anwaaxi lahwi wallacibi waltafaaxuri walxawdi fi umuuri dunya aw altafaaxuri fiha dalika wa man yucazim shacaair allah fa innaha min taqwa alqulub sadaqa allahu dalikum wa man yucazim xurumaati illahi fa huwa xayrun lahu cinda rabbi wa man faala ma shaa laqiya ma saa wallahu gaalibun ala amri walakin aksar annaasi la yaalamuun wallahu ala ma naqulu wakiil risaala muwajjaha ila alqiyaadaati addiiniya wa uwajjihu kalaami raabian ila alqiyaadaati addiiniya min mashaayiq alturuq alsuufiya wa ru'asaai almuassasaati alislaamiya fi hada albalad fa bacda alshukri waltaqdiiri lakum jamiican ألا, وقف ألا وقفتكم النبيل معنا في هذه المحنة نمد لكم يد الأخوة والمحبة ونؤكد لكم جميعا على وجود وحدة الصف معا لخدمة الإسلام ونشر مكارمه وتعاليمه والوقوف معا لمواجهة التحديات والصعوبات عملا بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأسلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وسنسعى إن شاء الله على العمل بما أمرنا الله به من التعاون على البر والتقوى والتشاور في كل ما من شأنه توحيد الصف الإسلامي وخدمة مصالح المسلمين وخدمة مصالح الإسلام والمسلمين عملا بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان risaala muwajjaha ila Sénégal qiyaadatan wa shaaban wa ama kalimati alaxira fa uwajjuha ila jami almuwatinin alsénégaliyin qiyaadatan wa shaaban fa uakkidu lakum anni sa abdulu kulla ma fi wusi li taqwiyati alrawabit alaxawiya wa taxsiniha tilka alrawabit التي تؤكد علاقة الأخوة والجوار والوطن وسأضع نصب عيني ما أمرنا به القرآن الكريم min albirri wal ixsan wa xusni aljiwaar kama qaala fi qawlihi taala kama fi qawlihi taala wacbudu llaha wala tushriku bihi shay'a wa bilwalidayni ixsaana wa bilqurba walyataama walmasakini waljaari zi lqurba waljaari aljunub walsaaxibi biljanb wa bni sabil wa ma malakat aymaanukum inna allaha la yuhibbu man kaana muxtaalan faxuura wa saamalu jaahidan ala ictaahi kulli di xaqin xaqahu من رئيس الدولة إلى مندوب الحي وسينال الجميع ما يستحقون مني من دعاء ومحبة وتقدير وتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان كما أمر الله عز وجل فيجب أن يكون واضحا للجميع أن كل ما يهمني في الدنيا هو خدمة الإسلام والمسلمين أن كل ما يهمني في الدنيا huwa xidmatul islaami wal muslimin wa annahu la xaajata li illa fi ma yuinuni ala taxamuli masuliyati alkubra allati wadaaha allahu ala aatiqi wa amma ma ada dalik fala xaajata li ilayh la min qaribin wala min baid hada wa ucabiru an shukri wa taqdiri li aadaai silki diplomasi alladina tajashamuu acbaa alsafari ila tuba bi hadihi almunasaba kama ucabiru an shukri lilbuldaani almujaawira والدول الشقيقة التي بعثت بوفود عالية المستوى لتقديم واجب العزاء وفي النهاية نسأل الله أن يوفقنا للعمل بما يحب ويرضى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل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 wa sanatahaddasu fihi maakum wa dalika bi munasabatin uxra wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh